Les amis de Sport TV, merci encore de la confiance renouvelée, merci de des likes, merci de des abonnés gars, merci également de les commentaires, un plaisir renouvelé chaque fois de partager les informations. Bok Sénégalais fait les maintenant 14 régions du Sénégal, également l'hôpital ci on ensemble dans la magie continue gars actualité bi nak ñu fas yéene li nga xam nak moy donc Bayern Dominique ça chauffe du côté du Bayern Dominique également bu ñoom Sadio Kaiser magnifique Mané Habib Diallo mi daal Abdou Diallo plutôt mi daal changer agent loolu yëpp ñu ci indi ay leeral lool nak euh, fas ko wasare euh, fi nga xam ne yi information yi la théorie pendant ce temps également gay ak Waba waxna naa ko moy nouveau donc mascotte bi jëm ci CAN 2023 2020 ci Côte d'Ivoire ak Waba qui signifie bienvenue dalal ak Jam lay Teki donc li mu nek mascotte nak bu éléphant de la Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire bi nga xam ne gars seen bëgg-bëgg moy gagner coupe d'Afrique des nations pendant ce coupe d'Afrique des nations bi Oussem Aouar dina participer première coupe d'Afrique des nations mom avec l'Algérie les Fennecs de l'Algérie moom mi nga xam signé na du côté de l'AS Roma face à sol nga xam numéro 22 bi l'ancien joueur formé du côté donc de l'Olympique Lyonnais mais du moom kese ki nga xam ne également moy Ivan Dika euh, moom it jël na nationalité ivoirienne day jouer pour ñi nga xam moy wa Côte d'Ivoire mom numéro 5 lay sol du côté de la l'AS Roma nak du ñu fekkee li nga xam moy trophée yi nga xam AS Roma da ko war jouer ci weeru janvier bi loolu commencé na coow li tax nag man du ma def titre parce que du ma leen jox benn buzz bi mais dama leen indi ay leer ki nga xam ne nag mooy donc Der Zakarian ah, mooy entraîneur bu Montpellier moom nag daf ñoo yàpp a ah, a amale bañ ko amale day nekk loo xam ne day jégalu ci wax day emmerdé maanaam day lakkal ah, ñi nga xam mooy donc club yu bëri ñii dañ ñoo yàpp fa laay ñii dañ ñoo yàpp quoi pendant ce temps nag gars waa Real loolu di doy loo leen di doyee Mbappé gars yi bu dee communication boy bi dàq communiqué ah booy bi nag dafa yabaate quoi moom nag gars yi dañ ko laaj ne ko yow lu tax nga signé Real te signé Barça mu ne bu la ñëpp bëggee bul Real ñëwee jarutul ngay wax quoi wax ji day fin loolu la daal di wax waa Barça nag kii da leen a yab aussi pendant ce temps également un ancien joueur du FC Barcelone ak un joueur du Real Madrid muy Neymar ak ki Vinicius Junior gis ñu ngi feetu ah donc nag am ay euh, manifestation yu abal mais Neymar fasal jom nag bëri nga wane sa bopp du côté du Paris Saint-Germain ki nga xam ne nag mooy donc Onana donc contrat bu 5 ans la war a signé ak ñi nga mooy donc Manchester United les plus conditions d' accord nañ ci comme je l'ai dit rek li des mooy waa Inter ak waa euh, ñii di waa Manchester d' mais joueur bi ak ñi nga xam mooy donc waa Ten Hag waa Manchester moom d' accord nañ ba pare et pour remplacer ko du côté de l'Inter de Milan ñoom nag fi ne nii Hugo Lloris. l'ancien capitaine ah de l'équipe de France nekk actuellement du côté de Tottenham lañu daal di ciblé ciblé plutôt pour mu daal di ñëw nekk donc seen gardien du côté donc de l'Inter de Milan Abdou Diallo changé na agent Abdou Diallo mi nga xam nak mom fimné fi mu ne du côté du Paris Saint-Germain ndax dañ ko à Leipzig mais blessure bi tax nak Leipzig téwuko del na du côté du Paris Saint-Germain mom nak agence bi mu nekkoon mo nekkoon classico jugee na fa dem signé ak ñi nga xam donc Vista bi nga xamné ben doomu Sénégal moko mom di Assane Thiam hein jeune bo xamné ne également mi ngi def euh, lu am solo ah dans ci walum sport bi dafay interview et tout donc moom it ñu koy jaajëfal félicitation parce que dañuy neex ñuy gis ay doomu réew mi di jël seen fit comme ni ko Jomaas si defee keneen ak keneen di yor ñi nga xam mooy donc joueur sénégalais yi ki nga xam ne mooy Danny Blind ah Danny Blind mi ngi noonu nag jugee na du côté donc euh, de euh, euh, Bayern parce que dañ ko fa aale woon ah benn année la fa nekkoon boog plutôt daal fi dafa dem signé du côté de Giron donc championnat espagnol bi la dem ah, Girona la daal dem signé ki nga xam mooy Danny Blind le défenseur hollandais ça chauffe du côté du Bayern de Munich Sadio Kay sax magnifiquement ne ñu bëri doon wax naan Sadio dafa waroon et tout mais Sadio a eu raison Les Sadio Mané am encore ci biir parce que Sadio Mané objectif imposé du côté de Bayern tax na ki nga xam Oliver Kahn le nouveau directeur ah donc du Bayern de Munich ah moom nag nee jamono ji nee ñun ay mercenaires ñoo xam ne dañuy ñëw tey def fi benn at ñaari at dem ak gëm projet bi nekk ci fi ne nii gis ngeen Bayern mi ngi jënd ki nga xam mooy donc kii di Kim Min-jae li tax mooy Hernandez dañu bëggoon euh, dem dem du côté du Paris Saint-Germain ñu jënd ki nga kii di donc Kim Min-jae et actuellement aussi dafa bëgg ñoom ñi ngi ki nga xam mooy donc kii di Kyle Walker pour mu remplacer ko mais Sadio projet bi moom dafa gëm projet Bayern de Munich dafa ñëw pour une fois rek wéet kenn du Sadio Kaiser magnifique

mu dem ak Makka mukaram Mukarram jàmm dellu dem ci donc pré-saison bi waajal di xam Amna match bu len xaar match jogonté hein ah, donc xaritoo yi ak wa Liverpool Gay toujours un plaisir hein, de vous servir woy len di like woy len di abonner toujours on avance ensemble dans la magie de eSport TV su baxé si na su bonee si ñun la rendez-vous tout de suite sur Baba Show jaa